Euh, rankañal xol baa ngi métti waaye nag duñ wax lu may lu neex yàlla ndax yàlla dëgg-dëgg kim jël moo ko moom te tim dimbale na ñu jox ñu ko di bu gàtt bu gudd ndax man ngaa wax ne dund na quatre-vingt-huit ans dund ko dund bu tey boo xam ne ci ron moo Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu mu yar ko jàngal ko óolu ko am yaakaar ci moom ku dem ba bàyyi wax ne li mu bëggoon ci am na ko kooku mooy li yàlla bëgg ci yow yàlla am na ko nit ku màgg la baax la nit ku lewet la liggéeyal na bàyyi ba nga xam ne mooy ambassadeur am ndax tukki yu bëri moo ko ci doon uutu kon ñu ngi koy jaale eh, réew mi yëpp di ko jaale xalif général waaye di ko jaale président de la république ndax jox na yëf yi itte ba muy dog moom ci boppam oo na ma wax ne ma wax naa Eh, ministre de mu taxaw yéen moom it oote na Diouf Sarr ñoom ñëpp dégg nga ministre ministre de la santé ñoom ñëpp daal ñu ngi rafetlu seen taxawaay. xam nañ ni yaayu rek kàddu ko njaboot yi est-ce que am na ay xibaar yeneen yu ñu mën a xam jëm ci wàlluk mbir yi naka la fas yéenee tëddee. waaw ba léegi daal li ñu waxagum. Mhm. nga xam ne Cheikh Mahi Niass mi nga xam ne moo topp ci moom joxe na date bi nga xam ne àllarba incha allah ci lañ koy.